dinañu nekk ci ay festivité dinañu nekk ci activité wu Kankourang bi ba yeneen yi duñu ko daal bàyyi xel donc ñoom ci situation boobu la ñu daal di embarqué ngir wutali foofu lay ca diwaanu tugal malheureusement seen gaal gi jotul yegg voilà il paraît que daanaka situation bi ni ñu gisee mu commencé di bouger fii njort nañ ne d'une minute à l'autre dinañu observer l'arrivée de son excellence euh, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, mais en attendant ñu continuer waale suñu live waxaale situation bi nga xam te euh, moom moo am fii ci Mbour Gueye daanaka nag plage bi ñu nekk di Boul Africa plage la boo xamante ne da daan bëri nit mais ci yeneen anam maanaam da doon am animation da doon am xumbaay de toro mais situation bi nga xamante ne am na fi ak euh, tiis ak naqar bi nga xamante ne wàcc na ci askanu mbuur loolee tax na mu changer décor bi aussi ñu ngi nemmeeku que ne euh, géej gi dafa xaw a agité wu de de donc mais terewul euh, de loin ñu ngi observer aussi ay gaalu napp yoo xam te ñu ngi circuler di amal seen activité normalement mais aussi ci biir aussi ñu ngi nemmeeku patrouille wala. opération de repêchage ak de recherche yi nga xamante ne waa sapeur pompier ñu ngi koy def ci biir géej gi donc yooyu yëpp mu ngi ci biir mais nag sànq euh, dafa am mbirum moo xamante ne jar na bàyyi xel mais aussi reelu na est-ce que diigub gaal gi mënul dem ba wàññi économie mbuuruwaa bi euh, économie état yi euh, ci lu jëm ci wàllum napp gi parce que aussi genre yi bu xewaan da ngay gis lu jëm ci wàllum jën moom daanaka askan wi dañ koy daal di araamal espérons que du demee noonu peut-être aussi ñi seen xam-xam màcc euh, ci wàllu woowee dinañ ci indi ay ay leeraange jëm ci ndax consommation jën bi aussi euh, jarul ñu koy xoolaat parce Mm, déegub gaal am na koor yu génn am na yuy réer donc lees waxul daal xam naa ne borom xel yi dinañu xam fan laa bëgg a bëgg a bëgg bëgg waxee donc yooyu tamit lu lu lu jar a bàyyi xel la ak aussi indi ci ay leeral parce que mën na dem ba toucher li nga xamante ne moom mooy économie euh, wàllum napp gi fii ci diwaanu Mbour. mais leneen euh, aussi. bokk na ci lu ñu war a nemmeeku ndax naka patrouille bi ak activité de recherche yi nga xam ne ñii di sapeur pompier ñu ngi koy def dama jàpp ne lu war a continuer la ñoom itam ñu ñëw booster la marine nationale ci biir géej gi de temps en temps pour que mën a éviter yenn embarcation yi waaye tamit éviter bu fekkente ne embarcation am na ba yenn jëy am ñu mën a amal lu jëm ci opération de secours yi ci nu mu gën a daare donc dinañu continuer tout à l'heure la l'arrivée du président de la République Bassirou Diomaye Faye di jël yenn ci ay réaction euh, tukkee ci ay autorité ak i boromi xam-xam euh, yoo xamante ne dinañ leen laaj ñu àddu ci ci mbir mi sànq def nañ ko ak ki nga moo di Boubacar Seye bu horizon président horizon sans frontières moom mu nekk ku ràññeeku wax dëgg yàlla ci xeexum mbëkk mi ci xeexum immigration clandestine euh, mu nekk ci koo xamante ne da ci bay waar wu am solo dégg nañ kàddu yi muy wax moom la mu wax rek moom mooy mbir mi mais ñu xool fan la ñu mën a jaar ba indi euh, espoir jëmale ko ci ndaw yi waaye tamit fexe ba tenir lii di euh, lii di lii di national pour waxtaanee mbiru ndaw yi fexe itam ba indi ci saafara euh, def ci benn diagnostic bu scientifique waaye tamit boo xam ne dina xóot ba ëllëg buñ ci noppee mu doon loo xam te dafay jaaree naax saay jël nañu aussi ki di jibi jaxate sociologue moom jàpp na ne mbir mi am na pression sociale bi waaye aussi tamit euh, doxalin ci yenn yi nga xamante moom mooy ndaw yi ak ñu nekk bitim réew di leen influencer loole tamit bokk na ci yi nga xamante ne euh, en tout cas moom mooy pousse euh, jeunesse bi ñuy jël yenn risques yi ngir wutali mbëkk bi ci noppee aussi taataan nañu kàddu yi Alioune Tine di njiitu Afrikajom Center moom itam daanaka ci même longeur d'onde bi la ne parce que gis na ne faaw ñu waxtaan waxtaan bi aussi la say jiitu bokk na ci autorités yi décrété lii di deuil national pour rek wane ne mbir mi am na fu mu leen yegg am na foo xamante ne laal na leen fa mais am na foo xamante yegg na fa askanu Sénégal mais aussi tamit jiital na prôné na à que ñu waxtaanee ko ba mu gën a xóot ba mu itam si jalag national bi pour que aussi ñu jëm ci indi euh, mesure yoo xamante ne dina doon saafara guy sax dàq ba li nu mel dootu fi amati dinañu continuer noonu aussi jéem a entrer ak ay kilifa. waaye tamit ak ñoo xamante seen xam-xam màcc na ci wàll wi ngir ñu xool ban saafara lañu ñu mën a indi ci bilam mbir voilà gis ngeen ci image yi noonu euh, dispositif euh, sécuritaire bi nga xamante ne jël nañ ko fi policier yaa ngi noonu di circuler euh, gis nañu aussi commandant de gendarmerie bi euh, gis nañu aussi euh, dispositif sécuritaire bi nga xamante ne am na fi parce que l'arrivée du président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko fi xaarandeegum donc loolay expliquer en tout cas teewaayu po waay takk dari fii ci plage bu bul Africa nekkee fii ci Mbour ci Grand Mbour nemmeeku nañ fi aussi teewaay pour askanu Mbour góor jigéen mag ndaw daanaka ñëpp a fi taw ak kanam yu triste ah, ak kanam yu triste ñoom itam euh, bi ñu njëkkee ñëw tàllal nañ leen suñu ay micro ñu joxe seen xalaat ci mbir mi ak naka lañu ko gisee ak tamit ban yëg-yëg lañ ci am waaye nag kàddu gu benn la ñoom ñëpp jàpp nañ ne lii dafa war a bu si nekk joué ci rôle bi nga war a joué pour que li ni mel euh, dootul mën a amati waxuma la fii ci diwaanu Mbour mais ci Sénégal gi yëpp. voilà xam naa ne du du yàgg dara kii di président de la république euh, Bassirou Diomaye Faye dina fi yegsi euh, jëm ci wàllu mbënd mi parce que ñoom itam dañ leen ci xaar ci ci ci ci ci saafara yoo xamante ne am na solo lool mais aussi ci yaakaar bi nga xamante ndaw yi am nañ ko